Conseil sénégalais des chargeurs Gosek moo leen di may seen revue de presse dale na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo jamono ji Sénégal ma ngi si ay jafe-jafe yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu ndox mu bari mi nga xam ne taw na ko ci biir Ndakaaru ak ci biir réew mi moo waral Sénégal yi maanaam ñoo ngi dund ay jafe-jafe ñu métte métte bëri na ci askan wi ñoo xam ne dañoo tëmb ci ndox mi yéenekaay groupe promo consulting bi xëy di ñu xamal lan ñu bëri na ay nit ñoo xamante ni ñàkk nañu si seen bakkan bëri na ay dégâts matériels maanaam ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen alal yéenekaay gi mi doy na waar mbir mi garaaw na Sénégal yi sonn nañu ba maara day taal yi yéen a kaay gi nee na ku gën a sonn sa morom rek nga ne kii la waaye nag askan wi mer nañu ba maara day taal yi loolu moo tax askan wi nga xam ne ñoo dëkk ca Parcelles Assainies ndox mi bi mu leen sonalee ñu dem ba ñàkk pexe siège APR ba la dem daal di koy saax-saaxe waaye daal di koy yàq yéen a kaay gi nee na lii lépp waa ANACIM waxoon nañ ko kilifa yi na leen ren ji ndox mi dina bari weeru avril léegi wax nañ leen ko kilifa yi nag bi nga xam ne moom lañ si waroon a am moom lañ si amul moo tax jamono ji askanu Sénégal ñoo ngi si ay jafe jafe-jafe bu ndakaaru tëmb nañ ci ndox mi biir Sénégal bëri na si ñoo xamante ni am nañu ay jafe-jafe yéen kaay gi nee na Macky Sall daan na li nga xam ne mooy plan Orsec journal bi daal di xëy nag samp ab laaj na léegi nag sunu 750 milliards yi nga xam ne génn woon nañ ko dugal ko ci mbënd mi ana 750 milliards yi loolu rek la ñuy laaj léegi nag nangul nañ leen seenug tëlee waaye nag xaalis moom fan la dugg yéen a kaay di Le Quotidien moo xëy di ko laaj ba tey ci biir journal bi nee na Ndakaaru dafa daal di suux ci ndox mi ak ay région yu bare bare kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi au lieu que nag ñu déplacé wu dem nag bokk ak askan wi naqar week jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy dund déplacé moom defuñu ko te bëri ay nit ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkaan yéen kaay gi nee na Ziguinchor Thiès Saint-Louis Sokone Kaolack maanaam foofa dem rek jàpp ne ñoom ñoo gën a am ay jafe-jafe yéen kaay gi de Libération nee na am na benn xale boo xamante ni ñaari at la am faatu na ci ndox mi ca Grand Yoff am na ci benn xale bu góor boo xam ne Basiru Saar la tudd am ñaar fukkaata ak juróoma kookee faatu na ci ndox mi ci tunelib ginnaaw raay am na ci keneen koo xam xamante ni ab agent croix rouge la faatu na ci ndax mi ca Rufisque yéen a kaay gi de Sud Quotidien ak l'Observateur nee na taw yi lu toll si juróom benn ci ay nit daat nañ ciy faatoo bëri na ci ay njaboot yoo xamante ni ci mbedd mi la ñu fanaan ngir nag ak tumuranke goo xam ne maara day taali bi nee na sëg yi nga xam ne ñoo nekk Pikine taw bi bëri na ay néew yoo xamante ne taw bi moo ko sulee askan wi nag sonn nañ mer ba maara day taali ay jàppante sax amoon na ci Cambérène Jaxaay Kër Masara yéen a kaay gi xëy yóbbu ñu diwaana Jurbel nee na bëri na fa ay njaboot ay kër yoo xam ne maanaam taw bi moo leen génne génn leen kër yi ñu nekk ci biti l'observateur nee na Tiwaawan bëri na si ay jumaa ki jàkk yoo xam ne kenn mënu faa dem ndax taw bi yéen kaay gi ne na ñi nga xam ne nag ñoo dëkk Kolda ak Ziguinchor ñooñu moom bay boo ñu def attention bay boo ñu def ndànk ak ñi nga xam ne ñoo dëkk Kaffrine yéen kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa Thierno Lo la mu xamle nee na milliards yi nga xamante ni moom la ñuy génne di ko def ci mbënd mi milliards yooyu yàq la ñi nga xam ne ñooy techniciens yi waaw techniciens yi ñoo war a wax dëgg état bu Sénégal ndax dafa am ño xam ne fi ñu dëkk yoonu ndox la te dëkk ci yoonu ndox milliards moo ko mën a saafara benn solution moo am maanaam tabax ay logement jëli nit ñi foofu délocaliser leen ndax bëri na ay quartier yoo xam ne ci biir ndox mi la ñu ko tabax ba tey ci biir journal bi ñu fekk fa Moustapha Diakhaté nee na plan Orsec bii nga xamante ni Macky Sall daanakay bëgg see def ay milliards mafia la ay léexoor bëgg lekk ay milliards rek la ñu def fa a gi ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna ci réew mi quotidien daat nay wax ne au conseil des collectivités ak conseil économique social environnemental conseil national du dialogue des territoriales ko war jële ci réew Sénégal ndax amu fi njariñ Pape Diop ci yéen a kaay gii di Vox Populi xëy di ko feelu nee na conseil économique social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales dañ ko fee war a supprimer jël xaalis boobee dugal ko ci mbënd mi yéen a kaay gii di Dakar Times ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Diallo nee na Macky Sall bu ñu waxantee dëgg maanaam mbiri boppam ak yëfi boppam maanaam moom lay lijjanti waaye jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi koy dund yoonu Macky Sall nekku si maanaam faaliwu leen nekk fi tas ay opposition loolee moo ko yitteel yéen kaay gii di fekk fa Abdou Sané di ab environnementaliste nee liggéey yi nga xamante ni waroon nañ ko def ngir nag sauver sénégalais yi ci mbënn mi liggéey yooyee la ñu defu la yéen a kaay gii di Vox Populi ak Sud Quotidien ñu xëy ñu xamal lan ñu askanu Sénégal jamono ji sonn nañ ba maara day taal tëmm nañ ci ndox mi njiitu réew mi di Macky Sall génn na réew mi yéen a kaay gii di Vox Populi ne maa leen ko wax de Macky Sall génn na réew mi yéen a kaay gii di Sud Quotidien na ñoo ngi si ay yu métte métti yéen a kaay gii di Vox Populi nee Auchan léegi nañ ko tuddee plan Sénégal inondé maanaam bu ñu waxante dëgg réseau assainissement bu baax moo amul ci réewum Sénégal Serigne bay Thiam nee na taw bi nga xam ne moom la waroon a taw ci nawet bi yëpp maanaam benn bis la ko taw loole moo waral catastrophe bi yéen a kaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moomee wax ci màggalu Touba i nga xam ne waa Touba ñoom nee na danañu ko màggal waaye nag dañuy jël mesure barrière yi cérémonie officielle du am xalifa bi sàkku na lu toll si juróomi million ci ay masque Abdoulaye Diouf Sarr nee na bu ñu waxante dëgg wàppi coronavirus kenn xamul kañ lay jeex ci àdduna bi yéen Dakar Times xëy dañu xamal lan ñu Ibrahima Boubacar Keita jëlee nañ ko Mali yóbbu nañ ko Abu Dhabi yéen i kaay gi du sunu làmb ñu koy fekk Fakati Diop la xam xamle nee na jamono ji CNG maanaam mu jógee fi mënu tut a ñàkk ñu andi fi ab fédération Matar Ba nag mën naa tabbu Mohamed Ndao Tyson ci bopp fédération boobu wala ki nga xam ne mooy Moustapha Guèye stade yéen i kaay mu ñu xamal lan ñu Kalidou Koulibaly ñaari baaraam moo tee mbir mépp sotti digganteem ak Manchester City ab agent jamono ji ma nga City ngir nag jeexal li nga xam ne mooy dossier bi yéen i kaay gi nee xam ne ñooy waa Barcelone